Mangi encore santaat la population de Mirkilan. ci président de la république son excellence monsieur Macky Sall su ma leen nuyu di ñaax parce que li ngeen gis fi tey xëy na communes yu bari soxla woon nan localité yu bari soxla woon nan ko président de la république comme que moom définir la politique de l'État... Mon moom prioriser ma gokh bi njëkkeel ma fii mujjeel ma fi kon moom ci boppam moom moo tànn pour que daral bi mën a nekk fi mu nekk kon bu dee sant bu dee jaajëfal bu dee ñaanal kon président de la république son excellence Macky Sall la ñu ñaan su loolu weesoo olof yi dañu faral di naan nit su la joxee ndékki dig la añ ak reer bu dee gor le président de la république depuis qu'il est là de 2012 à nos jours qu'elle nous ne gis pas secteur élevage lu m'a insisté sur le secteur élevage parce que tey ci tey foofu la que yàlla nattu ma jiite ko élevage moom la def agriculture la pêche moom la transport la dans tous les secteurs de l'économie nationale qui def bëgg na ñu ne ko waaw góor parce que dañuy faral di naan jaajëf baat bu gàtt la waaye baat bu am solo la su dul loolu loolu mën naa nekk surku source de découragement te képp ko xam ne yaa ngi liggéeyal askan wi foo toll dangay bëgg ñu la ñaax ngay dolli waaye nag nga lu dara ba pare au lieu que nga am tiant ak ñaan ngay dégg leneen wax dëgg fi yàlla du encouragé kon population de Ndoukoumane tout entière dama leen di réitéreel que ne président de la république Macky Sall tey la gën a nekk seen wet li mu commencé door la rek waaye li ëma am solo incha allahu taala ca kanam dañ koy gis kon dañu leen di ñaax encore une fois de plus ngeen def seen kémt lay kàttan pour que lii nga xam ne defar nañ ko ngeen taxaw ci su ma leen waxee monsieur le maire taxaw leen ci nag ce sera à travers aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gérer mooy suma gàmmu Amadou Seydou baax kontaan nañ ci kàddu bi dégg nañ kàddu bi aussi déggu déglu nañ ko dégg nañ ko waaye li gën a am solo ci kàddu bi mooy la reconnaissance bi ngeen am mooy delloo njukkal bi ngeen delloo président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall. président de la République c'est le président de tous les Sénégalais Mon le Sénégalais yi fal ñun yalla nattu ñu mu bolé ñu ci ñu mu wolu pour ñu am luñ ko doxalal dafa am na fa yegg ak fu mënul yegg man aussi am na fu yegg ak mënul yegg yéen ñi fi nekk kenn ku ne ci yéen na téye boppam maay ministre de l' élevage maa war a doxal élevage loolu pour la pour l' intérêt général l' intérêt collectif parce que toll nañ foo xam ne président Macky def ne nañ di fàtte suñu bopp ñu jël intérêt réew mi teg ko ci kanam loolu nag mënul yomb à la saga parfois am fu mu méttee ku bëgg defal omelette rek à la saga da nga toj ñaan kon nañu am compréhension boobu ñu jàppalante ci loolu